ne tey jii nii dañu kontaan bu ñu yàlla dimbalee ba ñu ñëw fii nii muy kër baay aada góor de jokkul ndaxte fii dëgg-dëgg bu ñu nekkee gi yéen ba léegi yéen a ngi accompagner senelek yéen a ngi jàppale senelek waxtañ wax nañ ma si taarix na am na jamono boo xam ne amoon nañ fi problème technique yoo xam ne yu métti la ingénieurs yi mënuñu ko woon régler c' est la communauté libre ñoo ko régler kon bu yéen bu sim bi taxawee fii ba léegi nii yegg si fii mu yeggi yéen dañ leen di sant di leen gërëm yéen waa communauté libre lu ma leen mun a wax nag mooy Senelec seen entreprise la Senelec c' est une entreprise cent sénégalaise monsieur le président daf si tenir moo tax tey ñu mun a taxaw fii di def lii lu ñuy def ak yéen fii nag yéen ko moom jeunesse bi dégg naa seen wax mais lu ma leen mun a xamal mooy site bi nekk na site industriel boo xam ne grâce à la vision du président réhabilité woon nañ ko parce que demoon nañ ba machines yi nga xam ne yu fi doon tàkk bëreetul ñun fiy tabax fii nii centrale bu gën a rëy Sénégal muy centrale boo xam ne trois cent soixante six mégawatts lay dal te ay sénégalais kese ñoo ko moom dolli ci vision bi nga xamne mom le président am pour promouvoir sénégalais yi mais aussi pour promouvoir le privé national kon moo tax ñu ngi leen di gërëm yeen ñëpp di leen sante mais lu ma doon wax nag fii ñu fi taxaw ba joggé fi té rendre ñu hommage ñu sante ñu suñu ancien directeur général bi nga xamne doomu lébu la piir nekk ak yéen muy monsieur Abdourahmane Lir mom mo ñu tété bir sénégalais encadré ñu et continuer di ñu suivre ba légui ni motax tax fu ñu mun ñu yex bi kon bu yalla défé ñu ñëw fi tay dinañ ko sante gërëm ko wax ko fi ni ci kanamu communauté que mom bu sana lay yegsee fi bokku na ci ñinga xamné ñoy pilier yu gëna dëgër yu taxawal sénégal yu taxawal le secteur électrique di sante ñëpp di gërëm ñëpp di wax jeunesse bi dégg nañ sen doléance amane neex bu soobee yàlla dina accompagner l'écurie dinañ leen jàppale bu baax ndaxte mérito ngeen ñu jàppale leen ndaxte nii ngeen def seen noble xam leen na Senelec lépp luy taxaw ak lu baax Sénégal bu soobee yàlla Senelec dina si dugal loxoom ndaxte Senelec yéen yéen a ko moom.